asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV bonjour à welcome bienvenue képp ku xamante ne nga ba si chaîne bul xaar aboneel cliquer ci cloche boobu ngay gis vidéo bi ñu dugal nga mën ko seetaan bul fàtte tamit un vidéo bi c'est très important mbokk yi kontaan naa si yéen bu baax a baax a baax ñoo ngi jege 1000 abonnés si sama ñaareelu seen seen Senfootball TV 2 pour képp ku xamante ne abonné goo boo demee ci commentaire bi boo demee boo cliquer nga dem nga abonné tey nag leen neex benn yoon ndax xam naa ne yéen sama mbokk da ngeen bëgg Sofiane Diop

fii la bëgg a France entre Sénégal et Maroc waxu si woon lu leer ndax boo jëlee ay ñeenti weer ci ginnaaw euh, waxoon nañ ne carrément waa Maroc insisté nañ def nañ seen këmtalaay kattan mais bool bi du choisir euh, Maroc ñëw na fi tamit vacances Sénégal Sénégal yu bëri jàpp ne est ce que gisantewul woon ak Aliou Cissé waxtaan ak moom ñu bëri loolu lañ jàppoon aussi tamit Aliou Cissé laaj nañ ko question boobu ne contacté na boy bi maintenant nag euh, boy bi moo ko war jox réponse mais contacté woon na ko en tout cas daal ñoo ngi xaar si semaine yi di ñëw baxam ndax li ñu wax dëgg la am déet leneen loo xamante ne mën nañ ko wax aussi tam ñun sénégalais yi xam nga bëri nañ ay joueurs macha allah donte suñu milieu terrain bi dañu soxla benn créateur bu mel ni Sofiane Diop ne war nañ mën a renforcer suñu équipe un Pape Matar bi euh, war na ko en équipe nationale du boobu ñoo ngi xaar benn Dion Lopy euh, euh, nañ ko mën a am en tout cas xibaar bi lii la ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis man personnellement damay xaar taskatu xibaar yu gën a mag wax ci pour mën ko gëm wax ne Sofiane Diop dina choisir Maroc bàyyi Sénégal ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ba leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bye bye.